borom xam-xam yi fi feeñ par kenn dan la wóona Sénégal li am kenn musu ko am yonente yi amuñ ko woon wali yàlla amuñ ko woon Sénégal nag mooy jamono xilaafa ma tax lépp dana feeñ Sénégal ndax benn borom xam-xamu Sénégal wala ben borom xam sénégalais mo man juróom fukki sahabatu yun yàlla Muhammad to lolu du sama wax waxu yun yàlla Muhammad la yun daal sa waxon na ne amna sama sahabu yu ñëw ëllëg kenn ca ñoom day wecc ci yéen cinquante personnes sahaaba yi ne ah bal minkum moo noonoo bal minhum kon benn sahaaba tey ci sabi tam same mën a day wecc dem ba sahaaba yi xeeb benn borom xam-xamu Sénégal day wécc ak yuntam yàlla benn borom xam-xamu Sénégal sénégalais wecci ab yuntam yàlla yén sansa moo ko waxati mu ne ulumal ummati ka anbiyay bani Israël la yooyu kenn mënu koo xale yu bëri jamono këf na leen ñee nga ca nay club yi di ànd ak gars yi di wax naan lu neex du doy dégg ngay dog ba beneen yoon ah lu neex kenn du ko dog yàlla kenn du dog mbiram lu te du yàlla it néewul nag loolu mooy dëgg léegi nag mu dafa seetlu ci at mi bi tay. ci silloo moom ndaw yàpp na ne daw wut lii sa nga Barhama Njaay lu tax ma ne sax yaay li ko may ndaw yàpp ñu ngi daw di ñëw ci keppaal sa nga neen lu waral loolu may la waral loolu mooy Cheikh Ibrahim waral na ma ma باي لالا bàyyi lan تو mu ne tazakirtu wa انت ما ليال في هذا الدولية فوفنا كهدر بابو باي من يهادروني نسيتك يا يقن قد أحس إلى الله قصدا تنين لن نموت ولن نحيا كم البنبي كارتلا لغو كارتلا tàng quartier la xel ak xalaat ay quartier lañu ci ay quartier lañu waaye quartier yooyu yëpp nag ñoom ñu ngi ci yaay itamay ay ñu ngi ci benn quartier boo xam ne moo ne quartier yëpp da kooku mooy yaramu Cheikh Tidiane moo tax baa ko saara kafam lil baraaya muus nan ahla tadaani ñu ngi seetal baax ci loolu ba tey sëriñ bi ndaw yii nga gis tey nekk seen diggu doole nga xam ne tey jamono la joo xam ne seytaane ki gën a soxla mooy ndaw iblis ki gën a soxla mooy ndaw nay këlëm yële ki gën a soxla mooy ndaw maa na ko wax baari yi ki gën soxla mooy ndaw xataa tubaab yi liggéey li sax ki gën a mooy ndaw kon ndaw ñëpp ko soxla yàlla aussi kum soxla mooy ndaw yunisaan kum soxla ndaw seetaan kum soxla ndaw bàyyi kum soxla ndaw kon sëñ woo ndaw yi te bi ñu ooyee ñoom ndaw yi ci lam ñun bàyyi la ne ooyee parce que atay tukka sarxan suma kaxlan wa inani atako cheikhan kon ndaw yi topp Sanga ko lan la Sanga Njaay fu mu juddoo kuy baayam Sanga Njaay kuy yaayam Sanga Njaay kuy maamam kenn xamul kuy Sanga Njaay ñu ne ñu ne ñu ne waaye Sanga Njaay kuy baayam yàlla xam na kuy yaayam yàlla xam na fan juddu buy saahir bii sama mooy Ibrahima sama baay mooy Ibrahima Ndiaye sama waaye loolu baatil loolu du dëkk wattabi sabila man anaaba suma ilaya kooku la mooy Cheikh kon sama baay ci aqiqa mooy Sayyiduna Muhammad may sama baay ndax ma abbal kulli fa julli bi ni asfal mi waaye sama yaay mooy siixu tijaan yi waaye fa ma juddoo maa ngi ñëw ci Cheikh Ibrahim ma taa baay moom ma ëmb wasin ma wal mu yenn aan yaram ngi jeex يرام موي سيتيت بي باي ان فؤاد قلبك قتكو كان ما ان قلبي موي باي تي باي ان تي قلبو قتكو دا نام ان ген باينا سقه سما سقه ان ايضا بن عزيز سقه بانتقالي سوبري في باي من سقى الله ارضا بمنك انها ما تريها في يرق يقوم kon diggante Sangay Ndiaye ak Cheikh Ibn Khayri jàmm rek fi nekk Cheikh daan wax ne taalibi yi wax man fekk na ko ba tey mu ne yàlla yontaal Mahamad Cheikh Tidiane Ibrahim wasaru laayaate mi benn hawla yi mu diggante yàlla ak yonente ak Cheikh Tidiane ak Baye mu ne fii amul ay kon ko am ay rek ci yow la ko am naqar bay naqar lu di def ay audio yu bon ci yow la rek way Cheikh mom lim fi mën fi am ay leena nag nga ne waaw comme yun son jàll na Cheikh Tidiane jàll bay jàll Cheikh Kër ñëw ndax dana am leen la war a ñëw ma ne waaw Cheikh ila ila ila ila ila ila ila ila ila dafa naan masakina maa shahiyu ila ila yati jël asl fi abad esa miski yi mu dalul asal wàcc ci abad te asal wàcc ci abad am na abudu abad am na abudu abudu abad kon Cheikh ak sanga Barama seen diggante bi dara ne ko ci jàmm nekk munaasa bu maa ngi dem Boubacar di ko siyaara te barki dem ba Ndiaye ma dugul une semaine ma jógee fii dem siyaare ji fa Seex Tijaan mu ñëw sama kër sama gannaaw la preuve mi ngi ànd ak Ousmane Ndiaye mu ngi sama gannaaw mu ngi nee toog taal soo xëy pire la te ñoom ñoom ñoo ànd ñëw fii sama kër sama gannaaw bi mu ñëwee dama jàll sama yaay bu gaañu. ñu woo ma téléphone maa nga faas jox ma ko ma waxtaan ak moom kontaan trop ci moom waxuma lu rey muy ñii bi nekkuma fi ma woo sama soxna Yacine Mbaye na ko Yacine Mbaye mën a mën nga addaaya bu duun jox ma ko Cheikh maa ngi ñëw mu dugg ci ruq xam fu mu jaar génne addaaya bu duun teg ci loxo Cheikh Karim mu dem ma ne ko Cheikh maa ngi ñëw léegi su ma ñëwee Sénégal man naan évité ma Yacine Mbaye Ngom falax ndeysaan ñu naan falax ñaari xulawans li ko taxawaat yuñ taxaw sam dañ ko liggéeyoon ay pas-pas mu nekk ñaata pas-pas fukki pas-pas ak benn ñu sànni ko ca teen ba mu génnee deret كل يوم يوم تاسع ليجيو سانع جاي نيو ندي دي يوم تاسع كين دخولي ولا ياسون كمين الناس كودين كوا خار من يو كلوا زبوري بفلاخ فن فلاخ فاق الحبي والنوا من سر ما قلقا أيو يالبن يالبنو أي يالبنو أي yàlla bindu ay nga ne ma lu tax yàlla bindu ay te ay yi di am ci àddina ma yàlla bindu ay xam nga yàlla mbind mbaax rek la bind a bindu ay ay kuréer ma fay dugg kuréer mooy dugg ci ay waaye ay yàlla bindul loolu man maa la waxal yàlla bindu ay mukk xam nga ay mooy lan li fi nekk nga riire ko loolu mooy sa ay li fi nekk li tax yàlla bind te xamuloo ko loolu mooy xay kon yàlla bindu xay wi ci yow xam-xam la bind ci yow boo la yunteel moom pour mu xamal ko nga lànk oo yàlla bindu ay boo ko toppee yunte bi ay dañ ci yow ministre maa ko ministre xaasiqin bu kukki bu kii rek ci yow mu sa nafasaati ba ñuy wal nag pas-pas di ko wal pas-pas mooy lëwalu لاغرو زاهر باطن لولو لاغرو زاهر باطن اف لولو لاغرو زاهر باطن اف باي كف لا جاتي لولا زاهر باطن رك nga wacci xam yalla di oto xam yalla xalib top la am ko taw hasan isa hasan xam xadara bi yow xam nga ne ku koy inkar ku ne da nga iñaan rek bu da xam xam am fi bu da yar am fi bu da sharia am fi buy tarixa am na fi buy fuylu bàyyi am na fi bu bëgg a bàyyi xam nga ne am na fi booy xam ko bàyyi xam nga am na fi moo ko ne booy yób bàyyi dégg naa ñu dem sax banaan sa nga ay wuy bàyyi doo lay jàng waaw waaw bàyyi mu ne wuy yi mooy zamartu hayaat yi maa ngi leen di leen sant di leen saar wasalaam caaxoo coof yóor caaxo coof coof yóor gars yi dañ ko yàq ci arab bi caaxoo coof yi lañu def du caaxo cufi caaxo cuuf yoo dafa am benn dëkk bu tudd foofu bu dëkk cuuf yoo benn dëkk bu dene moom dëkk cuuf cuuf yoo dëkk na la caaxo tudd caaxo ñu ne comme caaxo nag cuuf yoo moo ko mag léegi pour ñu mën ko ci caaxo dafa bëri foofu caaxo njigaan caaxo malayn caaxo caaxo caaxo dañoo bëri ñu ne ko ne ko dakkantalee cuufir gi nga jege pour nit ñu xam ko ñu ne caaxo cuuf yoo

comme fa laa juddoo nag ma gëj fa lool ñëw fii ñëw Dakar jaa jaa xayri Dakar jaa xayri waraa rek waaw jaa xayri Dakar ma ñëw ci fi gën ci Dakar fee feeñu ma fi jox ma fi vraiment loo xam ne alhamdulilah maa ngi sant baax ci lool xam-xam bu sell bu rëy waaye sama bunte wax naa la ko léegi jaar naa ci ku ñuy wax Cheikh Ibn Khayri jox naa ci ku ñu wax Thierno Omar jox naa ci ku ñu wax Thierno Alpha Sow waaye pi bi ma xool ko pi yàlla bi mu may xoo mu ngi woote pays baa ngi daw ci kanam lu kenn xamuñu mu ma dégg bàyyi na suma nuut yi ma du ko su dee ahmad faxaruj yëfoo su min kon ñu ngi sant yàlla bu baax may feeñ fii Dakar woote di dem Boubacar di ñëw di dem Rosso di ñëw di dem Mida Baye di ñëw di dem Taïba Niassène di ñëw waaye ànd ak maa ngi dimbal jaam yàlla yu bari ba tey àddina bi yëpp àddina bi yëpp laa gëm sa jaay du neen boo mën a mar kenn du ma gëm internet bii li fi jël ci tariqa Tijaan ci man li fi tuub ci ay nit li fiy jëf taj di ci ay nit kenn xamuñu ñaata amul benn réew booy dem ba tumara nga fa tey amul ci àddina ci àddina bi nekk nii ci senkoon nay amul ci loolu maa ngi sant yàlla baax ci loolu moo tax ma ne la kon nit dafa iñaan rek ay li ku man defal moo gën maa man diw maa man diw defar rek waaw defar rek defar koo kenn ñu ngi sant yàlla baax ñun de ku ne gis nañu guddeeg bëccëg sanga jaa sax du waxtaan daanaka su ma waxtaanee cinq minutes jox suma malaaka yi Touba yi ñëw naaw Jaxate Sara ñëw wadd daa si ñëw xalangu maam sa ñëw dukkat amaan ñaa ñëw sikkar ba nit ñi naan kaan bàyyi moo turu sikkar ba gaa yi dem xatu kursi akas naaw ba gaa yi dem xaqatu muhammadiya basir naaw gaa yi ahmadiya gaa yi naaw ñuy dem ci xilaafa bu ne ba seen sikkar naa allah barham bi na gaa yi ñëw xatul ba xaay waxtaan commencé jóg ñoom raxas kaas li ma defar kaar barikal la tabarakal sama xalaat tabarakal ab xalaat Abdou Thiam Abdou Thiam nga xam ne góor yàlla gu dëgër gu ñeme gu jàmbar bëri xam-xam dafa ko non maa ngi koy maa ngi koy félicité bu baax soo limee da ngay bàyyi dafa ñooy bàyyi man sama jamaa boo paree joxal ku la ñu wax mu wax lii caaxaan du ko lal ku du def lii ku nelaw bët set du def lii xataa kuy gëmmentu sax doo def lii nelaw dafa haram gëmunta haram ci pi yalla bi soo ma da ngay tok bu ni teud da ngay tok tuti set nga yee ñu jullo pare nga nelaw tuti tut ñaar heure rek demaat magasin jaay ta man damay jaay magasin lay am damay ñew fi nelaw ba ki ma sangu ba set de magasin tok taa bi ñëwaat magasin ñu nekkaat ci musa yi ci waxtan yalla subhanahu wa taala kon ñun li nekk ñun deug deug nebutul guddi nebutul beccak xana ko dof amul ñepp di